Euh, man la monsieur le maire Mansour Sour tey ma nekkaat seen gan ñaareel bi yoon fii si Rewmi fam euh, war a waxtaanee tolluwaayu réew meek ak euh, liggéey bi ñu dénk mais également élection yu ñu génn muy élection législative yi fekkoon ma nekkoon candidat wu intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu Sénégal foofu si département de Louga am na solo monsieur le maire bañ la fi doon dalal lim nga ñu fii ay projet yi nga xam ni suma nga ko ca biir commune ba euh, tey daanaka wala huit wala sept mois mi ngi nii ginnaaw bañ leen falee ba tey est-ce que mën nga ñu defal ab mi bilan bi nga xam ni mooy doon benn at bi nga xam ni moom ngeen waaj a dëgmal. waaw effectivement euh, bi ñuy doog a def émission bu njëkk ñu doon wax suñu mébét euh, mébét yi ñu amoon si si dëkk bi. ñu ngi jël fonction le le 8 février je pense soo calculer léegi day def 6 mois. exactement 6 mois yi nag am na jéego yu am solo yu ñu fa def jëm si wàllu gestion des ordures muy mbalit mi nga xam ne si jafe-jafe la woon booy dugg si dëkk bi xar kanam dëkk bi mbalit moo doon tertu te loolu bëri na dëkk yu bëri mais boo fa jaarate da nga xam ne am na loolu fa def ndax yaakaar naa bi ñu toogee moins moins 2 mois mobilisé nañ équipe UCG ànd seeg ñoom vraiment ñu dindi xar kanamu dëkk bi yëpp. ñu dikkaat fa également euh, fi amoon ay jafe-jafe si wàllu mbalit dafa liggéey bu yaatu bi nga xam ne si yaakaar naa dafa des bëreetul ci dëkk bi yëpp. également si wàllu. laata na la leen dikkee partenariat bi ak UCG xam nañ ni nekkul yomb bu ñu xamee ni benn euh, maire la maire boo xam ne dafa nekk ci kujje gi ak partenariat yi ni mel ndax euh, euh, waxtaan bi yomboon na. waa xam nga ñu sommes dans une république ñun naam li ñu woowee kujje mais nous sommes un démembrement de l'État collecteur local démembrement État la. Euh, je pense que bu liggéey taxawee dañuy summi casquette politique teg ko fële ah bu jongante dikkee ku ne dem wuti mais su jàllee liggéey mooy des euh, te collectivités locales yi dans un dans un état boo xam ne si état wu moo ko def également lee ñu jiite di commune Ndiagne également nekk un démembrement kon bu leen soxlaa je pense que naturellement waruñu xool casquette politique mais dañuy xool institution bi ñuy représenté mmh. te vraiment ña fa ko jiite wala ñeen ñin sa xam yàlla dafa def dañ doon jàngandoo ak ñoom ñu xam leen. Mhm. kon amul benn problème à ce que ñoom mën a intervenir. Mhm. je pense que loolu la par exemple boo jëlee fii si Ndakaaru ah je pense que depuis 2009 ba léegi. Mhm. ñi ko jiite si ku jigi la nekk. am ñu état bi te état lu mu war def koy def. je pense que bu ñu ko comprendre loolu rek du am benn problème euh, maintenant loolu moo taxoon euh, ñu defa liggéey ba am solo si si wàllu mbalit boobu également si wàllu éclairage bi mi ngi en cours Euh, wàllu extension ak euh, wàllu. mais euh, neex na waxal askan wi comme mbalit bi ñaax bi waxtaan ak ñoom ngir li nga xam ne moo jëm ci mbirum mbalit bi ana ban anam ngeen ko na a fas yéenee defee ndax population bi am na adhésion ci wàll wi. waaw je pense que cet ñëpp ko bëgg cet dafa bokk ci wér-gu-yaram je pense que population bi am na ci adhésion jusque nag il faut ñu accompagner leen. ñu am ay sites yoo xam ne si dañ koy reconnaître fii la ñuy sotti mbalit xam nga parce que xar kanamu dëkk bi sooy dugg sooy génn dëkk bi à l'entrée à la sorti dafa def mbalit loolu rafetul n'est-ce te dëkk yu mag ci réew mi yëpp loolu nga fay gis mais ñun on s'est battu à que loolu dañ ci euh, suñu commune maintenant am na foo xam ne ci ñu wax ay kàmb foo xam ne si site site yi ñu wax ñun jël arrêté euh, arrêté euh, pour ñu officiellement na fii lañ sotti mbalit ku ko def am na ay ay daan. yu dal sa kaw ngeen leen ko. effectivement loolu moom ñi ngi si ñi ngi si nit ñi ñu leen di accompagner te euh, vraiment loolu ñu ngi si ñu ngi si def ay jéego yu mat mm, wax ak nit ñu nag dafa yombul. des fois mu am ay. sensibilisation effectivement ñoo xam ne si li ñu wooyee ay récalcitrants leen mhm. mais nag naxanteek ñoom rek ba ñu xam ne li ñuy def pour suñu intérêt ñun ñëpp la dëkk bi su setee. jekk yaakaar naa ne ñun ñëpp suñu suñu avantage la te je pense que population bi mu ngi adhéré mhm. euh, si politique boobu. Mhm. dafa mel ni kon da ngeen am benn jéego bi ngeen teg ci wàllum cet ci biir commune bi. effectivement euh, loolu moom vraiment jéego bu ñu def la te nit ñi bu dul dara sax ils s'organisent euh, les gens dañuy organiser wu d'abord di set setal kon nag pour institution bi ñëwee accompagner leen day gën a yomb. parce que nit ñi am na volonté pour set loolu moom je l'ai je également am nay journée yuy am day am de temps en temps ñuy organiser di setal je pense que loolu problème bi mu nekkoon rek fa la ñuy sotti mbalit bi loolu moo nekkoon effectivement loolu moo doon problème bi te je pense que am nañ ko xamal leen également xarkam dëkk bi mooy vitrine bi ndax dëkk bi moom ku fay jaar jàll rek loolu ngay retenir kon nag bu buñ fa jaaree gis mu set dañu xam ne ñi vraiment am na effectivement am na yaa une évolution boo xam ne si mi ngi si côté boobu yaa ngi may laaj si si biir laaj yi euh, mini blanc wala mi blanc bu ñu def. wax naa la si wàllu gestion des eaux bi mais également wax ma Njaañ dafa nekk dëkk bu mag euh, am luuma lu ñu wax luuma muy marché boo xam ne si bokk na si marché yi gën a rëy si réew mi. ba doon xool euh, gis nga suñu mbokk yi doon jaay jula yi les gens danoon vendre danoon jaay xar yi fu la neex ñun nag bindikee marché da koy organiser. Mmh. parce que nit ku juba di mën a ñëw. jël xaru jàmboor taxaw si mbedd bi jaay ko dem ñu nag ñu ne leen il faut que ñu organiser wu effectivement il faut que ñu organiser wu à que nit ñi bàyyi mbedd yi bàyyi kër yi dem di jaay si marché bi nga xam ne soo jaay xar officiellement dañu xam ne diw Mbemba mooy jaay xar kii ñu xam ko si biir marché bi loolu on a fait c'était pas facile yombul woon ndax buñ yàggee si benn rythme pour nga changer ko day xaw a métti mais finalement xam na ne li ñu yoon léegi ñoom ñëpp dañuy dem si marché bi dem si daral bi di jaayee foofu pour ñu gën a mën a aménager aménager dëkk bi parce que loolu dëkk da nga koy aménager ñu ne ñu xam euh, liggéey bu ne ak ban site la lañ koy defee je que loolu. lan nga def ba convaincre leen ñi nga xam ni euh, pour demoon ci ay luuma yi di jaay euh, nekkoon na ay jafe-jafe léegi tey ñu d'accordal la nangul la loolu lan nga teg si seen loxo bañ. d'accord waaw mais discussion rek la xamal leen ni li ñu def nekkul si yoon xam nga nit ki dem bu nekkul si yoon da nga koy wax ne nekkul ci yoon n'est-ce pas. parce que mënuñu jël devantu këru jàmboor wala si mbedd mi wala si kaw tali bi foo xam ne si nit ki mën a ñëw rek jël xaru jàmbur jaay ko dem risque d'abord la si am mais boo nekkee si biir marché bi ñu xam ne ki mooy vendeur bi kii mooy acheteur bi je que loolu moo gën kuy def lu transparent loolu moo gën quoi ràññee quoi euh, waxtaan ak ñoom mais également jël des mesures vraiment am na fu ñu toll faut prendre des mesures en si ak euh, Euh, les forces de l'ordre ba ce que ni ce que uh-huh. nit ñi euh, yi nga xam ne si jël ko uh-huh. loolu benn la si wàllu marché bi benn la également si wàllu éclairage maa ngi koy wax sànq am na benn projet bu ñu nekk déjà am na ñu ci accompagner euh, ñu ngi yokk l'éclairage public ak extension bi déjà on a on a prévu un montant de dix cinq cent uh-huh. ci suñu budget parce que bi mu ñëwee dama def virement de crédit parce que éclairage dafa nekk priorité si ñun pense que les semaines à venir dinañ continuer chantier boobu ba nga xam ne si làmp yu yàqoon di ko euh, changé électrici bi tey fan la toll ci Njaañ ndax mën nañ wax ni village yi si ëpp am nañ courant wala tey yéen a ngi daw di doo dàkk ak état ba tey. non Njaañ moom mën na ne à 100 pour cent c'est électrifié vraiment loolu depuis. Euh, peut-être que xam nga dëkk day am extension des fois nit ñi di màgg dëkk bi màgg dina am ay sites yu ay poches yu ndaw yu amul te loolu très bientôt incha allah dinañ continuer travaux yooyu. mais courant bi àgg na fépp parce que Njaañ mën naa ne c'est une agglomération nekkul commune boo xam dafa bëri ay village amul ay villages pratiquement benn benn benn kii la euh, benn commune euh, urbaine la en quelque sorte quoi du ay village ñoo ko constitué c'est des quartiers déjà loolu c'est bien maintenant nag am na ay li ñuy wax euh, la périphérie nit ñi dañuy màgg loolu day fekk courant bi am fu mu yem il faut nga def ay poteaux pour courant bi àgg foofu te loolu ñu ngi si les semaines à venir incha allah extension bi na àgg mais éclairage bi non semaine semaine dès incha allah on va signer Euh, les les papiers à ce que les travaux puissent démarrer déjà am na lu mu commencé euh, si wàllu éclairage bi mi ngi en cours ba démb rek ñu ngi si woon mais également le semaines à venir di leen gën a yokk extension mais également les points lumineux muy làmp yi gën a yaatu si dëkk bi parce que day loolu day bokk si sécurité dëkk bi mais également day gën a rafetal dëkk bi mhm. loolu ñu ngi si ok léegi euh, wax ci beneen fànn itam courant am na solo mhm. itam ndox mi ndox mi ci dëkk ba ndaxam am na net amélioration ci wàll bi wala am na ay jéego wala yéen lan ngeen ci bëgg a def comme jéego. waaw ndox mi moom également Njaañ euh, heureusement ñoom amuñu problème ndox aussi. Mhm. parce que forage bi fa nekk c'est vétus si yàgg na. vraiment yàgg na mais ñoom euh, ñu ngi alimenté wu en eau sincèrement parler loolu moom yàgg na jusqu'à également ñu ngi doon def ay correspondance pour voir des partenaires. à ce que ñu mën a am un second forage te loolu je lance encore un appel à l' état central ndax euh, ndox hydraulique nekk une compétence transférée loolu état moo ko yoree ñu gën a mën a bàyyi xel population bi que comme forage ba fa nekk yàgg na mais ñun à notre niveau en tant que élu élu local ah ñi ngi wut ay partenaires ñi ngi def ay démarches on a écrit pas mal de correspondance ay partenaires yoo xam dañuy yëngu si wàllu ndox à que ñu mën ñu accompagner loolu ñu ngi koy suivre quoi mais également di inviter l' état central dans ce mu xool nu ñuy accompagner à ce que ñu gën a am beneen forage boo xam ne si dina mën a kii. Mhm. ndox monsieur le maire ci wàllum environnement tey fan lañ jaañ toll parce que itam euh, dimanche bi weesu rek la ñu jugee ci li nga xam ne moom moo jëm journée mondiale ci wàllum garab tey environnement bi dafa mel ni gàncax bi ci yenn dëkk ak dëkkaan yi am na ñoo xam ne dafa leen rey ndax xam euh, ca dëkk ba foofu di njaañ. Euh, li jëm ci wàllum environnement bi jox ngeen ko gëdd bi war. effectivement xam nga environnement dafa am solo te euh, suñu zone yële loolu mooy seen problème parce que li ñuy wax dagg garab yi dafa bëri euh, coupe coupe d'arbre bi dafa bëri ñun nag yaatala un mois ci ginnaaw déjà dafa nekkoon suñu programme mooy lancer benn pépinière déjà mi ngi en cours démb rek maa ngi maa maa ngi waxtaan ak ñi fay ñi fay yëngatu lancer woon nañ benn pépinière ba ñoom ñu ngi def suuxat ay garab. li ñu bëgg mooy développer pépinière bi ba nga xam ne si dañuy dañuy reboiser. Mhm. benn benn benn benn benn benn programme boo xam si de reboisement la doon ñu ngi si parce que ñun dañu xam ne environnement mooy lépp environnement mooy lépp. mais nag loolu ça doit être un programme vaste warul nekk rek un programme moom day am commune. Mhm. parce que comme garab yi moom amul limite amul limite dafa war a yaatu au-delà de de notre commune mais au niveau de l'arrondissement et du département voire la région et le pays. Mhm. loolu également dañ si lancer appel euh, au ministre. en charge de l'environnement euh, ak Abdou Karim Sall Abdou Karim Sall ñu gën a bàyyi xel loolu mais en tout cas ñun niveau euh, dañ ko jox super priorité moo tax ñu lancé pépinière boobu bi nga xam ne si mi ngi en cours lancement bi yàlla cela un mois un mois demi si ginnaaw quoi bu ko defee léegi te je pense que plantation yi ñu ngi jóg te su paree dañuy def ay reboisement au sein de la commune. Mm-hmm. parce que lu am solo parce que ak changement climatique beeg ainsi de nawet bi justement ak euh, foofu dafa mel ni kon politique bi euh, ndaw ñi ñu ngi koy bëgg a foofu. effectivement xam nga garab euh, dafa dafa dafa am njëriñ si lépp d'abord si nit ñi. waaye également euh, si si wàllu taw bi. ndax ñëpp xam na ni euh, li ñu wax dafa am benn cycle buy buy am. interrelation buy am si diggante nit ñi si gàncax gi mais ak asamaan si ni ñuy xëccee ndox loolu dafa am solo te loolu également nit ñi ñu ngi si am conscience naam dañ ko doon dégg maay gis ngeen euh, raréfaction bi am si wàllu taw bi maanaam la pluviométrie. gis na ni day Sénégal dafa xaw a yéex surtout zone bële day yéex a tawlu. Mhm. loolu nag euh, mën naa ne loxo yi nit mi gis yàlla mooy taw mais yàlla moo organisé àddunaam noonu. Mhm. moo tax loolu ndaw ñu ngi si conscient euh, également ñu ngi def euh, sensibilisation. Mhm. ak waa eaux et forêts yi de passage dama leen di dama leen di nuyu ñoom également vraiment ñu ngi def lu ñu mën. mais aussi nit ñi ñoo leen mën a jàppale. à ce que ñu bàyyi coupe d'arbre bi. te comme dafa am relation bu am déjà ñun oxygène bi ñu noyyi. d'abord foofu lay lay jóge waaye pour nekk nu nit ñeeg gàncax geeg ak wàllu taw dafa am solo. moo tax loolu également ñu lu ñu mën ñu ko def. ce travail de sensibilisation moo waral mu wax la pépinière boobu ñu lancé à ce ñu gën a reboiser waat xamal leen lan mooy njariñu garab si nekk na nit ñi. waaye également si wàllu si wàllu taw bi. ci beneen wàll gi mooy euh, wax ci wàllum njàng bi euh, gis nañ ko résultat yu baax yi nga xam ne ren il faut oser le dire euh, école Sénégal am na ko ba tax na rek ki nga xam ne moo di njiitu réew mi kañ bu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo di élèves yi ñi nga xam ne ñoom la ñuy duppee agresseurs yi bu école tëjee léeg dañuy gis ñenn ñi di attaquer seen ñi leen di jàngal loolu bokkul ci école bi Sénégal ci jamono joo xam ne mi ngi waajal classe préparatoire war ubbi ni ki Diagne la dem waxtaan euh, jàng mi foofu ndaxam am leen résultat yi la ngeen am doy na leen wala da ngeen war a yokkaat jéego. waaw li ñuy wax alhamdulilah rabbil alamin parce que Diagne vraiment ren euh, euh, maa ngi ak les chiffres par rapport ak entrée en sixième CFA entrée en sixième bi. BFM mm-hmm. ak bac bi. vraiment résultat yu spectaculaire lañ def foofu macha allah mm-hmm. nga may ma féliciter les enseignants. yu nekk ci élémentaire bi moyen ak secondaire mhm. yëpp vraiment parce que su ma jëlee rek ci bac bi Njaañ mu jël troisième au niveau départemental lycée Njaañ mhm. vraiment ak résultat yu am solo Euh, également si CFE entrée bi yëpp également ils ont ils ont fait des des, yu am solo kon njàng mi dafa am solo. Mhm. parce que waxoon naa ko fi ndaw mooy ëllëg. bu nu amee tàggatee suñ doom yi suñ jarbaat yi ñu si si tàggat bu baax ñu am njàng mu baax xam ni ëllëgu réew mi. si si seen loxo la lay nekk. te dañu am une population largement jeune vraiment population bi dañu dañu ay ndaw lañu ñooñu nag bu ñu amee njàng bu baax ah njàng bu baax encadrement bu baax eh, loolu day am jeexital ci ëllëgu réew mi mhm. te xam-xam mooy lépp ñun dañu man dama gëm xam-xam moo tax loolu lu ñu mën a def rek mooy encourager leen à que ñoom ñu mën a góorgóorlu mhm. moo tax ñun également si wàllu njàng mi dañ ko jox priorité. vraiment comme en faisant quoi. waaw en faisant mooy travail de sensibilisation boobu mais également accompagnement. Mhm. accompagnement des écoles parce que suñu suñu suñu budget bu ñu ñëwee dañuy def ay de crédit comme dañu ñëwoon fekk. le budget a été déjà voté li ñu mën def mooy virement de crédit euh, bëgg mën a accompagner déjà si examen yi ñun dañuy taxawu euh, les enseignants euh, pour ñu nekk dans de bonnes condition n'est-ce pas de travail mais dans les écoles élèves yi également nekk dans de dans de bonnes conditions d'ailleurs euh, ñu ngi waajal loo sànq rentrée scolaire bi euh, xam nga commune bi def ay dotation de fourniture waaw moo tax ñun dañuy travailler directement avec les directeurs d'école ñoom ñooy xam seen expression de besoin xam exactement ñoom la lañ soxla parce que man je suis pas un mais ñoom ñooy jàngalekat yi te ki ñu jël mu nekk suñu président commission bi ñu dénk wàllu njàng mi enseignant la kon moom enseignant la xam na exactement yan manuel la la école di soxla ñoom ñooy seen expression de besoin def ko buñ paree rek dañu dem def lancer commande bi buñ dikkee mettre ko à disposition te incha allah balaa la rentrée scolaire yooyu yëpp dina disponible ñu gën a ñaax xale yi ñu gën a góorgóorlu si si wàllu njàng mi même bu fekkee du tardé mais tamit yenn prix de d'excellence yi dafay faral di encourager ñi nga xam ni ñoom ñooy nabu di jàng ñi nga xam ni jàngul am gët ci loolu mën a dàbbaliwaat ci mbir mi e, effectivement loolu la mu gëm parce que loolu ñu koy def sax nekk Euh, président suñu association élèves étudiants yi amicalu élèves étudiants yi Njaañ ñi dañ ko initié woon vraiment di encourager euh, suñu suñu rakk yi loolu yàgg na ça fait ans ñu ngi koy def kon bu yàlla defee ñu nekkaat si bopp dëkk bi day gën a faciliter loolu waaw te xam nañ ko si ñun kon incha allah loolu li nga wax initiative bu rafet la même au delà même de l' école euh, française si daara ji. également si euh, daara ji. ndax ci commune ba loolu lay itam. si commune bi ak si zone bi. parce que boo demee commune Njaañ Kokki zone yooyu yëpp dafa bëri ay daara rawatina Njaañ. Njaañ la fa nekk ëpp na fukki daara ak ñett wala fukki daara ak ñeent. mi ngi fa officiel yoo xam ne ñu ngi fa ñun bi ñu ñëwee dañ leen accompagner d' abord si si santé. xool eh, si politique sanitaire parce que dafa nekkoon suñu programme ñu ñu def lépp si programme lañ ko sukkandiku xool eh, ndongo daara yi ñu leen di taxawoo moo taxoon ñu jël eh, def ay virement de crédit rek la moom def virement de crédit pour mën a accompagner ndongo daara yi si wàllu wér-gu-yaram mhm. loolu loolu loolu benn jéego bu am solo loon même si wàllu éclairage bi rek yenn daara yi nga am amoon éclairage je pense que démb wala barki démb am na daara yu bëri yoo xam ne si dañ fa gën a yokk ay ay ay points lumineux pour ñu ñu ñu am éclairage mhm. foofu si daara yi mais également taxawu leen si seen seen seen programme yi nga xam ne si ñi ngi si loolu également comme dañu doog a tàmbali en six mois da def ay jéego rek ñu xam ne après également da leen da leen gën a mën a accompagner te loolu ñu ngi si ak ñoom d'ailleurs dañu fan benn rencontre ak ñoom woo sëriñ daara yi seen seen organisation bi waxtaan ak ñoom déglu leen ñoom ñu wax ñu lan mooy seen jafe-jafe ak la mooy seen bëgg-bëgg ñu xool si loolu li nga xam ne si mooy suñu compétence parce que seen bëgg-bëgg yëpp nekku na lépp day wékku si municipalité bi waaye ñun lu ñu si war wax ne lii ñun suñu responsabilité la incha allah dinañ si accompagner te ñu ngi si on a fait pas mal de pas mais des na nag euh, xam naa ne fii ak fin d'année yu bëri bëri dina àgg mais également 2023 2024 ainsi de suite mm-hmm. ba nga xam ne si lu ñu si war lépp dinañ ko mën a def encore seen daara yi mm-hmm. ci wàllum paj mi itam euh, am na ay jéego waawaa si wàllu wàllu paj mi également am na am na am na ay jéego déjà sax war na am na benn journée de consultation bu war a am normalement samedi bi ak euh, euh, suñ benn sëriñ bu nekk wax sëñ Mor Diagne muy journée sam sëñ Tuubaa bi mu amal foofu ñu leen si accompagner parce que ñoom day indi ay médecins euh, pour ñuy def consultation consultation population consultation général ak yenn consultation Euh, par rapport ak certaines pathologies quoi mais ñun euh, de notre côté la municipalité li mu mën def rek mooy accompagner euh, poste de santé bi nest pas si si wàllu médicament maanaam jël ay médicament lu ñu ñoom dañuy am subvention effectivement dañuy am subvention je pense que y a y a un montant de 3 millions 500 boo xam ne si dañ ko budgétiser yu ñu war a leen jox Euh, au CDS li ñuy wax comité de développement sanitaire. loolu la jël pour ñoom jënd ay médicaments def ko ci poste bi pour post bi di mën di mën di fonctionner. mais également des travaux euh, ci biir post bi am na benn projet bu nekk déjà sax am na ay partenaires ñoo am ci ay doomu Njaañ lan ñu nekk ci diaspora bi yu ñu accompagner par rapport à la réflexion si euh, ay bâtiments yu nekk foofu déjà. les fonds sont disponibles. Mm-hmm. Jusqu'au comme c'était en campagne, j'étais trop pris, mais que les semaines den mën a def devis bi euh, ñun nag la ñuy xaar les fonds sont disponibles pour mën euh, si yenn bâtiment yoo xam si dafa défectueux si biir poste bi ko reprendre euh, pour mën ko defar incha allah ce qui veut dire que mooy ñi nga xam ne ñoom askan yu nekk biti réew fàttewuñ itam fu ñu dëkk non waxoon naa ko fi ñun xam nga zone Njàmbur la ñu am particularité ah. xam nga man naa ne population bi largement émigré la ñu te ñoom dañuy bàyyi xel seen dëkk li olof Njaay naan picc mi ngi si kaw waaye xel ma ngi suuf ñoom saa su nekk vraiment dañuy bàyyi xel seen dëkk loolu moom si à saluer te ni mu nekkee njàmbur noonu nekk Sénégal gi yëpp gis nga ñoom ñu dugale seen loxo si seen développement terroir vraiment moo tax ñoom dañuy échanger ak ñoom seen association yi dañuy échanger ak ñoom si ñun suñu politique suñu vision parce que ñu bokk vision bi mooy ñu def ba suñu dundin ak suñu nekkin ñoŋ moo tax ñoom vraiment loolu dañ ko dañ ko rafetlu moo tax bi ni leen waxee projet boobu également dañ ko rafetlu ñu na leen defal devis bi euh, vraiment les fonds sont disponibles euh, te incha allah weekend bi war naa nekk en déplacement dinaa xool nu ñu defee devis bi envoyé leen ko les semaines à venir ñoom dinañ moo dugal seen loxo muy une première participation dans ce sens même lu mel noonu également am na d'autres bonne volonté parce que am na don de matériel boo xam ne si matériel médical euh, boo xam ne si fondation bu Gorgui Sy Dieng mhm. moo ñu ko jaglewoon à travers sama benn tonton Issa Sarr moo defoon démarche yi. juste un mois ou deux mois juste après. bu ñu installé teg sa bu njëkk. effectivement gis nga gis nga loolu exemple la Gorgui Sy Dieng exemple la. maa ngi koy gis ci internet bi je pense le 14 la ko war a def benn pose première pierre pour. Euh, Euh, pour euh, pour benn hôpital normalement au niveau de Kébémer te ni nekkee foofu également la nekk fenn parce que maa ngi lay wax euh, benn association mais y' a une autre association à Ndiaye boo xam ne si ñun on avait même prévu de faire pose première pierre suñu deuxième poste de santé ñu ngi si doon travail association de développement xam ne c'est la municipalité seulement période électorale bi campagne moo tax ñu repousse mais xam ne les mois venus incha pour vous dire pour montrer que diaspora bi ñoom ñu ñuy bàyyi xel. impliqué wu si seen développement dëkk. pour ñu mën a am deuxième poste de santé à Njaañ te xam naa incha allah les mois à venir. d'ici un mois ou deux comme dañu nekk période hivernale dañuy xaar nawet bi wàcc tuuti rek ñu mën a jublu si si liggéey bi. ni nit ñi tey la campagne électorale on allait faire ça mais campagne bi moo ñu xoon a bouleversé ba man amoon temps nécessaire pour mën ko def mais incha allah pour pour montrer daal que ni euh, population Njaañ bi surtout diaspora bi dañuy bàyyi xel vraiment seen dëkk te loolu ni mu nekkee Njaañ la nekkee si département ak si région yëpp kon nga ma may rek ma def euh, félicité encouragé vraiment diaspora wu Njàmbur bi ak diaspora wu Sénégal bi ñoom vraiment dama gis seen taxawaay parce que yàlla dafa def dama def un tour benn tournée une tournée du moins dans le département dans les villages dans les hameaux gis ñoom taxawaay bi ñu am si seen dëkk vraiment loolu j'ai fait ce constat ni mu nekkee Njaañ la nekkee dans les autres communes euh, du département et voir la région <laughs> kon diaspora boobu am na solo quoi jar également ñu leen di bàyyi xel di leen jaajëfal bu baax a baax. am na solo monsieur le maire Mansour suur la ñuy dalal ci émission gox bi moom mooy bokk moomeel bu Njaañ monsieur le maire gis nañ la fan yi ak euh, ki nga xam ne moo di jëriñ ñu denk wàllum l'armée bi si Sidiki Kaba ngeen dalloo foofu ab euh, poste gendarmerie bu yees dafa mel ni ñëw na régler benn situation bi nga xam ni yéen a ko doon jooy. effectivement. Euh, waaw dañ doon inauguré il y a de mois et demi. un mois oui un mois juste un mois un mois demi euh, brigade gendarmerie bu Njaañ boo xam ne si c'est une vieille doléance ñun nag dañu doon fekk chantier bi nekkoon fii euh, la municipalité moo mettre à disposition les locaux également la gendarmerie nationale euh, ñëw accompagner ñu. Mm-hmm. bi ñu ñëwee également bi ñu toogee fekk dossier bi lu ñu mën def nañ ko pour. Euh, terminer euh, les travaux yu nekkoon foofu euh, pour que lépp nekk également yàlla ma ñu sens en tant que maire ñu inauguré la brigade de gendarmerie ànd ko ak monsieur le ministre des forces armées maître Sidiki Kaba nga xam ne si brigade bi vraiment day yokk kaaraange waxoon naa ko fii day yokk kaaraange ci zone bi parce que pour sécurité am rek je pense que nit ñi dina mën a liggéey seen xel mu dal waaye ñi nga xam ne si ay jëf ko ay jëf ay jëf dañuy jëf ay ñaawteef euh, dinañ deltuwaat ginnaaw bu baax a baax xam ni euh, zone bi dafa soxla sécurité xam ne nit ñi également bu ñu investir seen alal vraiment si wàllu càmm wala wàllu commerce dañuy bëgg sécurité parce que yaa ngeen fa dégg ay boutiques yu ñu fa toj wala ay jur ñu fa yóbbu mais yaakaar naa ne comme brigade bi ñëw na euh, dina mën a renforcer. mais est-ce jumtuwaay yu li la ca war yëpp euh, teg nañ ko éléments yeeg ainsi de suite des fois léeg loolu doon problème. no vraiment lépp mi ngi fa nga may ma au passage ma ma nuyu le commandant commandant Pouy euh, bi commandant brigade gendarmerie bu Njaañ vraiment ils sont en train de faire ils de faire un excellent loolu moom il faut il faut le saluer. dañ ñëwee ba léegi diggante bu ndaw. ah gën a fa ay ñaaw ay ñu ñu koy waxee ci wolof. ay ñuy def ay ñaawteef eh, ñoo xam ne si ñoom ñu ngi def seen liggéey. vraiment dañuy xaar ci ñoom ñu ngi koy def eh, te ah ba léegi dégg ñu fa benn problème. te dañu ñaan yàlla mu continuer mais je pense que am nañ ay éléments ñu ngi fa eh, les éléments sont là-bas également le matériel loolu lu ñu wax ci ay kii mais mi ngi fa ñoom. en tout cas li ñu xaar ñoom daal ñu ngi fa. Mhm. Euh, bu leen état bu lay accompagner si accompagner leen gën leen a dooleel. Mhm. lu ñu si mën pour jàppal leen incha allah euh, dinañ ko def pour seen travail gën a ñoom. Mhm. les collaboration bi surtout itam sensibilisation war na mën a am ci askan wi ak ñoom itam ci seen liggéey ndax leneen foo xam ne naam mën nañ fa yegg mais collaboration bi nekk loo xam ne lu sincère la itam mën na euh, di dimbali leen ci situation bi. effectivement loolu moom loolu moom loolu moom lu war la collaboration boobu mooy mooy li war parce que. ñoom bu ñu fa nekkee askan wi moo tax ñu ne bu ñuy wax gendarmerie nationale nest pas euh, ñëw pour kaaraange askan wi kon lépp day tourner autour de la population kon collaboration bu saine bu sincère lu war la te je pense que population bi dinañ ko def en tout cas ñun en tant qu'autorité lu suñu warteef mooy ñu ngi fi accompagner leen gunge leen bépp information bu ñu soxla def ko euh, bu ñu soxla sax ay moyens à notre niveau bu ñu ko yoree jàppale leen parce que ñoom ñun la ñuy dimbali waaw askan wi dafa nekk si suñu suñ suñ suñu warteef kon bu ñu état bi mettre en place euh, brigade de gendarmerie accompagner leen ndax wax naa ko nit ñoo fay investir ñooy am seen alal foofu kon boo investir da ngay bëgg sa li nga investir mucc kon ñoom li ñu mën def rek mooy euh, ànd ak ñoom accompagner leen je pense que ñu ngi si si yoon boobu Louga mbay bi njaañ wala mbay mi foofu mi ngi dox par rapport ak tey taw bi ainsi de suite ndax am euh, baykat yi ñu ngi séentu quand même nawet bu neex. waaw euh, loolu nag da nga may ma taxaw si yaatal ndax ku xam njàmbur xam ne ay baykat lañu euh, je parle pas de Njaañ mais je parle du département. de la région. Mm-hmm. ay baykat lañu foofu lu ñu xam mooy mbay mbayum ñebbe ak mbayum gerte ndax dugub bi sax dematul noonu. mais mbayum gerte moom lu fa yaatu la lu ñuy wax arachide ak ñebbe ah yooyu euh, ay variétés yu fay développe parce que euh, la région de Louga moo nekk première zone de production de ñebbe au niveau national. Uh-huh. presque 70 pour cent de la production euh, foofu lañ koy defee. mais nag am nañ ay gàllankoor yoo xam ne si suñu mbokku baykat yi am nañ ko. mooy lan déjà ce matin rek am na ko may jokkool ñu may wax li ñuy wax awoor awoor mooy ay. insectes yoo xam ne si dañuy yàq dañuy yàq euh, mbay mi mooy euh, gàncax gi pour ñu màgg dañ koy lekk déjà loolu ñu ciy lancé un appel waa DRDR ak euh, ministère à travers le ministre bi yëpp ministère bi yëpp ñu gën a mën a bàyyi xel suñu mbokk baykat yi ndax ay pesticides dañ koy soxla pour mën a pour mën a rey abar yooyu ndax defoon naa benn benn atelier de travail Euh, bi ñu waajee def euh, distribution semence yi euh, suñu papa yi ñi am dañuy yàgg si bay dañuy wax que suuf si dafa am insectes yi dañ si nekk en période sèche dañ si nekk loolu nag dafa laajoon traitement ñoom ñu ko mooy parce que tawee ñoom xam nga suuf la ñuy nekk su tawee la ñuy génn loolu nag traité suuf si suuf rey leen si biir moo gënoon loolu nag dañuy dañuy lancé appel à l' état mu gën ko bàyyi xel parce que y a des milliards yoo xam seen koy def si wàllu mbay mi mais je pense que bàyyi xel bàyyi xel euh, bàyyi xel suñu suñu mbokk baykat yooyu am na solo ba question yooyu mën ko régler à l'avance vraiment parce que ñoom li xam rek mooy bay dunde mais bay également pour mën a subvenir à leur à leurs besoins kon loolu dina baax ñu ñu bàyyi leen xel bu baax a baax à part loolu lan mooy beneen jafe-jafe bi foofu si wàllu mbay mi mhm. waaw également des fois nga dégg diggante baykat ak sàmmkat mhm. xam nga ñuy ruural parce que Euh, wax naa ko sànq. da ngay am problème yi ngay. Euh, effectivement xam nga bi déjà bi brigade ubbee. Mhm. lépp day feeñ. Ah. daan am mais lay comme lu am problème da ngay dem brigade bi. chaque fois euh, je suis en contact ak le commandant. d'ailleurs ñun dañuy jël sax benn fourrière lu ñuy wax foo xam si dañ jur gi mhm. jël arrêté am ku ñu nommé comme si moo koy gérer en collaboration avec brigade bi ku ñu jàpp sa jur dañ ko yóbbu foofu da nga ne ay man da ngay fay. est-ce que yomb na. Euh, xam nga yombul parce que ñëpp ay mbokk lañu xam nga dëkkandoo dafa xaw a doy waar yow ki lay ruural sax mën a nekk sa mag wala sa rak ndax moo am ay jur mais nag comme dafa taw ba ba ba tool yi ah, gàncax gi jóg normalement ah. dañuy lancer appel suñu mbokku càmmkat yi tamit ñu bàyyi xel tool yi euh, naam nag dañu war a aménager te c'est fait aménager zone bi ñuy defee càmm ak zone bi ñuy defee mbay mais nag ki investir nag mbay mbayam soo ko simpee da nga ko lor te àq la loolu nag dañ si war a bàyyi xel bu baax a baax ba nga xam ne si kenn du lor moroomam ndax kii càmm dafa nekk si activité am kii kii mbay nekk si activité waaye kenn ku ne boo téewee sa li nga war def je pense que jàmm dina am. Mansour Sour mooy maire bu Ndiagne moom la ñuy dalal ci émission gox bi monsieur le maire dégg nañ Macky Sall président de la république plan décennal bi nee na mi ngi annoncé waat beneen programme itam. ci li jëm ci wàllum inondation bi est-ce que da nga jàpp ni euh, laata ñuy dem ci beneen programme nañu leeral programme bii nga xam ni dugaloon nañ ko ci wàllum inondation mbënd euh, nañ ñu wax la lañ ci def. waa xanaa di masow d'abord suñu mbokk sénégalais yi euh, rawatina fii ci Dakar ndax gis nañ ni Sénégal yi sonn nañu démb dama seetaan télé journal waa Cité Bellevue. vraiment ma gis situation bi nekkee waaw ma situation bi nekkee mu metti lool euh, bu nee jëlal plus de sept cent milliards en dix ans ah si à travers le programme euh, décennal de lutte contre les inondations bi nga xam ne si gouvernement tegoon na ko ah les gens dinañ poser question xaaj bu fa la dugg parce que su tawee day mel ne dara mosuñu ko def kon y a un problème je pense que euh, bala ñoo injecté waat euh, ay milliards war nañoo toog xayma xayma xool les travaux euh, fan la pol la yi nekkee parce que chaque fois day mel ne ñun dañuy nekkaat case de départ day mel ne euh, bu tawee daal euh, li ñu faral di wax rek plan Orsec li sama benn xel di wax rek. que gars yi moom reetaan nañ ko jàpp léegi. plan Orsec moom boo dikkee mën nga changer date bi buñ ko buñ ko buñ ko déclenché août. Euh, août 2021 août 2022 2023 ñu déclenché waat ko kon foofu jur sax ngay kii da ngay changé date bi rek bu fekkee le 10 la woon waaw vraiment doy na waar daal doy na waar mais daal euh, ñu ngi lancé appel parce que c'est très sérieux xam nga c'est c'est un benn problématique bu sérieux la euh, c'est très sérieuse je le dis kon loolu waruñu koo waruñu koo jaaxaane vraiment mënuñu jël ay milliards nag muy suñu alal di alalu askan wi ah amul benn évaluation loolu day xaw a doy waar te jël plus de 700 voire presque 800 milliards def ko si si benn benn benn programme ah chaque année le programme revient je pense que loolu euh, le président laati sax moom moo war a jël demande à ce defal ko ay compte mu xam exactement qu'est-ce qui a prévu qu'est-ce qui fait mu xam ko et où est-ce que le problème se trouve je pense que loolu dañ ko war def avant ñuy lancer beneen loolu moom vraiment. est ce que da jàpp ni kon njiitu réew mi dafa lajj ci plan bi mu teg. ah ñu daal on parle des faits mooy on revient case de départ loolu moom euh, Sénégalais yi na waa Ndakaar ñoo koy dund. waaw kon euh, day mel ni échec. te échec sa moom parce que su fekkente ne yow li taxoon ñu def plan programme boobu ah gisuñu résultat bi noo koy tudde échec est-ce que saafara bi ni mel yéen njañ bien vrai que amu leen jumtuwaay ngir xeex ko état moo ko yor mais est-ce que euh, la ca war laata muy ñëw da ngeen ko def maanaam mu bañ leen sonal. si wàllu mbënd bi. man waaw inondation yi Njaañ wala ah, foofu amu amuñu problème inondation des fois dina am mais c'est pas méchant quoi c'est comparé à Dakar. Mhm. bokkul quoi en fait man je parle de Dakar et dans les grandes villes mais fële à Njaañ xam nga fële sol joor la am quoi. su tawee ndox mi day day kii mhm. mais xam nga fii euh, c'est une ville pas. bokkul ak yeneen yi euh, effectivement y a y a y a ce qu'on un étalement urbain euh, benn dëkk la quoi euh, de de Gorée naan presque de plateau à Cambérène voire benn benn zone la benn étalement la quoi mhm. kon construction yi dafa bëri tu comprends ndox bi amul fu mu jaar déjà loolu problème te Dakar ku ko xam suuf si dafa am ndox suuf si dafa màndi quoi du coup lu mu taw lu mu ndaw day taa day répercuté wu loolu nag am benn Euh, benn programme wala benn programme d'assainissement bu baax boo xam ne si canalisation bu baax su ndox bi tawee ndox mën a génn dem géej loolu rek mooy mooy solution bi. Mm-hmm. léegi solution bi yow am nga ko lan la. solution bi mooy euh, d'abord ñu jàngataat li ñu defoon. Mm-hmm. wax naa ko mooy avoir ay canalisation ça demande beaucoup de beaucoup d'argent beaucoup de milliards mais il faut le faire parce que Dakar mooy suñu capital n'est-ce pas Dakar warut nit ñi waruñu dëkk sous les eaux. mais ñoom prétexte bu ñu dox mooy États-Unis ak ñoom Japon ñoom itam bu tawee noonu nu muy def noonu lañ def kon taw bi ñoom moomuñu ko. non non non non foofu vraiment seen niveau ñu moo raw suñu niveau yi bu dee si ay si wàllu construction. Hmm. moo raw mais doo fa gis ndox bi taa comme nii day taw France day taw feneen mais bu tawee ndox mi day dem. mais fii euh, gis nga cité Bellevue yow ça fait semaine bi mu tawee ak léegi. zone de captage. Euh, semaine bi taw bu taw bu bëri mooy vente la doon vente bi faat na ba léegi ndox baa ngi fi. Mhm. demul kon y' a un problème n'est-ce pas d'accord am problème mais su paree ndox mi dafa évacuer mhm. ndox bi demul problème bi mooy ndox bi dafa dafa dafa stagné dafa taxaw li war def mooy mhm. ba ndox mi dem. loolu mooy loolu mooy loolu mooy kii bi l'autre chose mooy également les chantiers yi fi nekk ak euh, BRT bi. Ah, embouteillage bu tar bu mu créé mais également boobu soo gasee. dëkk bi yëpp n'est-ce pas day dagg gis nga nu mu daggee dëkk bi dagg tali yi ba yàq je pense que loolu également. tembeeg dëkk bi taga tembeeg euh, presque. tey génn naa mais gis nga embouteillage monstre bi am si dëkk bi yooyu yëpp ay problématique la euh, nit ñu duñ mën a dem ndox maa ngi fii également day causer ay sources de maladie ndax ndox bi day jaxasoo ndox bu bon bi. vraiment xale yi nekk si yu bëri bëri. loolu liggéeyu ONAS la. effectivement loolu mais lépp si état bi daal la doon waaw ça revient à l' état central. bu <laughs> dee assainissement euh, gestion des inondations yëpp c' est lié c' est l' ñoo war a xool yan jumtukaay lañ war a jël pour saafara problème problème inondation bi dafa nekk benn problème bu sérieux mhm. dañ ko war a régler une bonne fois pour tout ñu jàll si leneen. incha allah loolu mooy mooy yoon quoi. Mansour euh, maire bu Ndiagne. monsieur le maire àddu ci wàllum politique euh, dégg nañ décision bi nga xam ni intercoalition bi jël na ko wàllu yeewi nee nañ laata ñuy ñëw ci beneen ponk bi résultat yi nga xam ni publier nañ ko élection législative yi ñu génn du ngeen def recours ñàkk argument la wala ñàkk wóolu conseil constitutionnel la. waaw mais xam nga je pense que recours yàgg nga ko dégg euh, gis ngeen li fi xaw avant les élections je pense que fàtte xaju fi Euh, bu ñu invalidé euh, la liste nationale euh, muy titulaire bu coalition Yewwi Askan Wi ah. je pense que suivre nañ jëru may dikat si péripéties recours yi fi amoon ak yu ko jiitu mhm. ak élection yi fi jiitu les recours yi amoon maintenant y a-t-il lieu de faire un recours c'est une question qu'on se pose est-ce que jar na ngay def recours man je me dis que Euh, l'opposition euh, Yewwi Wallu a fait a fait a fait le nécessaire ak li ñuy woowee les remplaçants n'est-ce pas euh, def nañ la nécessaire ba aujourd'hui euh, euh, le pouvoir amul majorité loolu mooy constat bi et c'est inédit pour la première fois depuis les indépendances ñu dem une élection au sorti des élections que pouvoir amul majorité loolu mooy les faits wala sommet majorité c'est relative écart benn voix xam nga loolu. mënoo ko tuddee majorité majorité. cela veut dire que ñoom ils seront ils sont seront obligés les 83 députés du pouvoir. d'être présents tous les jours. te bu njëkk gis nga absence absence yi doon am. tu vois régler nañ benn situation. loolu benn kii la mais gis nga score bi ñu def te boo jëlee résultat yi man je parle pas des post mooy les postes députés mais tu vois da nga koy analyse benn angle mooy. que ils sont minoritaires maintenant en termes de voix. pour preuve je prends suñu département. yaa ngi nekkaat de mille voix. ah yaa ah, nekkoon tête de liste bi yow. waaw Louga effectivement nekkoon ma nekkoon tête de liste bi yaa nekkaat de mille voix entre Yewwi ak euh, Yewwi ak euh, Benno. Uh-huh. n'est-ce pas. mais yéen foofu justement ñu taxaw fa est-ce que euh, erreur de communication amul diggante yéen ak askan wi ci bulletin bi nga xam ni waroon nañ ko jël ci ci vote bi. waaw man man je me dis pas que erreur de communication man chaque fois maa ngi koy analyser mais je me dis que ni nit ñi dañuy bëgg suñu Maam Abdoulaye Wade. Hmm. man man angle boobu laa ko mën a gisee parce que après discuter naa ak des gens ñu ne ma ñoom euh, ah c'est moi à Njaaña ah. ñu ne moom mënuñu mënuñu lem bulletin Abdoulaye Wade di ko sànni si bi. tu comprends quelqu'un qui pendant trente ans quarante ans. Mm-hmm. voté le même bulletin. Mm-hmm. n'est-ce pas. est-ce que le bon Wallu boog du moins. non non non en fait euh, ça dépend parce que résultat yi ñu def c'est bon il y des gens comprendre nañu. mais am na ñoo am si mag ñoo xam ne si peut que comprendre peut-être que communication ça pèse quelque part parce que àgguñu si ñëpp. mën naa ko nangu àgguñu si ñëpp. mën na nekk mais y a des gens bi ma expliqué ñoom mënuñu gis bulletin Abdoulaye Wade. sànni ko sànni ko si mbalit bi euh, di benn bulletin. xam nga loolu ça se comprend. parce que soo jëlee les 2900 voix de de de wàllu soo ko toog tegee su suñu résultat euh, y a pas match. Hmm. n'est-ce donc euh, yéenay gérer daal léegi département bu. non loolu moom leer na. on est on majoritaire te li gën a li gën a li gën a li gën am solo mooy xam nga le département c'est 17 commune ñun on a gagné les 8 communes commune chef lieu muy Louga fi nga xam ne si mën naa ne les barons yi nekk foofu parce que présidente HCDT bu fa la nekk Aminata Mbengue suñu yaay euh, le le le ministre. Moustapha Diop le ministre maire Moustapha Diop fa la nekk président conseil départemental bi Amadou Mbéry Sylla directeur Dem Dikk uh-huh. euh, euh, euh, Bounkhata et tant d'autres personnalités yoo xam ne si e et et quinze maires. Uh-huh. quinze maires parce que le département pratiquement lu si ëpp si mouvance la nekk n'est-ce pas ñoom ñëpp ñu dóor leen seen. dëkk dóor leen vraiment c'est c'est Euh, c'est inédit quoi. sant yàlla bu baax percée la ci opposition bi ca euh, Louga. Euh, depuis 2012 ba léegi. Ah. la première fois que opposition bi nekk majoritaire dans le département. Mhm. en termes de voix. ndax nga ni téye léegi tey li ni mel. non non mais loolu la ñuy téye mooy li am si réew mi rek parce que y a un changement ñëpp xam na ni. chaque dix ans day am benn cycle bees. Mhm. que régime bi c'est fini loolu yàlla def parce que li ñu war a nguur nguur yàlla day jeex. da nga koy nangu ko on est en politique. je pense que nit ñi dañu am lassitude. vraiment mais également euh, gisuñu seen bopp. si politique yi nga xam ne si mën nañu def parce que foofu li ngay dégg politique mooy ay lal basang affaire joxe xaalis pour man loolu c'est pas un problème. man je parle du département j'ai eu la chance de de parcourir tout le département. si je vous dis que am na benn village bu ñuy wax Tëdd Biti nekk dans la commune de Kër Momar Sarr am na village bu ñuy wax euh, Fons nekk dans la commune de Sierre ils sont à 300 du lac de Guiers. da ngay taxaw si village bi nii yaa ngi seen eh, dex bi dexu Kër Momar Sarr mm-hmm. te du naan ndox doo ko gëm mm-hmm. te Dakar bi fi may waxee nii bu naa ne ndox ginnaaw yàlla ñoom ñoo tax moo tax village yoo xam ne sii du ñu naan ndox tu vois c'est écœurant tu dafa métti si xol quoi ñoo xam ne si euh, euh, boo demee foos ñoom dañuy gas ay teen ay mini teen seen biir kër mm-hmm. ndox bi déjà c'est pas de c'est pas de bonne qualité boo demee Giding noonu boo demee Gànket noonu da ngay gis nit ñi euh, dañuy rang ay bouteilles dañuy teg nii ndox bi ay euh, à tëdd biti à une heure du matin ndox bi ñëw. c'est dommage pour nit ñi naan ndox. tu vois te Lac de bi mu ngi nii da ngay da ngay tu vois c'est tout près. Mhm. loolu mënu ko comprendre. te pourtant c'est des Sénégalais ñoom déjà man je me dis que sax euh, waa Sen'Eau dañu war a fay redevance Sen'Eau normalement zone Kër Momar Sarr. muy les commune de Kër Momar Sarr et de Sieur jàpp Gandé n'est-ce pas parce que euh, zone yooyu trois communes yooyu yëpp dañuy yaa ngi pàtt yoo am si ndox bi daf leen laal normalement dañoo am ay redevance mm-hmm. war na fay ces commune n'est-ce pas soo demee zone Sieur tu ñoo xam ne si amuñu benn kilomètre de route tu vois c'est c'est c'est problématique effectivement si ay conditions de vie yu métti la ñu nekk. Mhm. tu vois loolu ñu wax ma ne normalement ñoom xam nga ñu ko département. Mhm. ma ne normalement ñun dañu woon jógee suñu commune yi ay Njaañ ay Thiamène Koki pour ñëw foofu di émigrer. Mhm. parce que bu la yàlla may suuf bu bëri may la ndox dañu war a liggéey. tu vois mais euh, dangay gis ni suuf si da ko jox ay multinationales à siège boobu mais suuf si déjà da fay dëkk. tu es de la commune mais mënoo am benn. un mënu am benn 1 mètre wala 2 mètres carrés jeunes yi amuñu suuf bu ñu moomal seen bopp. loolu mooy problématique ba fa am moo tax mu ñi euh, gis nga li ñu jël. Mhm. vraiment te loolu dañ ko war a xoolaat man je me dis que dañu war a une bu bees. Mhm. Euh, bàyyi xel li ñuy woowee dëkk kaw gi. Mhm. parce que ñoom ñooy Sénégal ñooy Sénégal. département wu Louga mu ëpp fuuf en terme d' espace département de Dakar peut-être fi mu gën a peuplé mais en terme d' espace. ñoo ko nañ ko dix fois n' ce pas. fii c'est 0 virgule même pas c'est c'est Dakar qui est 0,28 pour cent du territoire mais Dakar euh, mais la le département de de de la région est tellement n'est-ce pas ñu am ay sources yu bëri am ndox te seen xale yi amuñu suñu liggéey mm-hmm. dëkk yi jigéen ñi amuñu suñu jàpp euh, ñii wax mu sax mais xam nga ndox c'est vital ñàkk ndox vraiment loolu mënu ma ko comprendre loolu moom ça m'a frappé et ça m'a marqué. waaw ah, te loolu je un appel à ce que. ñu jël see jubbanti ko jeunes yooyu ñu am ndox. Mhm. parce que loolu c'est un droit et c'est un droit absolu. beneen bi mooy euh, ñu bëri ñu koy lamlaamee ah presque Pape Diop dafay dem fekk ji Benno Bokk Yaakaar donc du coup da ngeen bëggoon am majorité ci assemblée nationale dafa mel ni euh, ay chance ku jéggi mi ngi xaw a néew tuuti. waa xam nga assemblée bi suñu assemblée de transition assemblée bii duréem deux ans la kon euh, ñoom ñëpp lu ñu def mën nañu ko xool te je pense que bi ñu dem di compétir dañuy dem compétir au nom de l' opposition ñi ngay wax yëpp muy Papa Diop le président Pape Diop ñoom Pape Djibril euh, ak président Thierno Alassane Sall je pense que bu ñu amee ay voix bu leen di voté voté la ñu parce que les populations pouvaient voter directement Benno cela veut dire que ñoom ils ont uh-huh. ko respecté constance constance si li ngay def euh, nit ñi mënuñu la wóolu nga ñëw di changer seen qualité. est-ce nekkul famille libérale moo tax mu bëgg a wax loolu. mais le PDS PDS ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy. suuxat ñoom ñooy seen en fait bu ñu wax libéral. Euh, ñooy tax tax je pense ñoom ñëpp lañ soxe ko. kuy rek kuy kuy wóor tey libéraux rek PDS moo tax te PDS ñëpp gis nañ position mu mm-hmm. ngi si dans l'intercoalition. Euh, loolu sax euh, man problème bi mooy yow bu la defee choix da nga respecté choix boobu population bi voté dafa am confiance yow lii moo tax ma am confiance maintenant eux ils sont libres après de faire l' essentiel mooy li ma wax rek mooy ils seront tenus de ne pas être absent loolu enjeu fa la nekkee mhm. deuxièmement mooy que il euh, y a 82 députés 81 voire 82 députés yoo xam ne si ñoom voire 83 sax la wax la majorité parce que ñoom opposition lañ voté la mhm. loolu mooy les faits lu waaye defaat nag da def lu la neex n'est-ce pas mais les 83 les 82 de l'intercoalition plus les 3 là opposition la leen votel ñoo war a xool seen position maintenant chacun est libre nag euh, nooy kiiwee mais dañ xam daal sur une assemblée de transition te yaa l'après 2024. loolu moom ñun lan xam te 2024 yàggatul. c'est dans moins de 16 mois 16 mois waaw kon motul 12 mois. Mhm. beneen bi mooy au conseil des collectivités territoriales ngeen ne yéen du ngeen bokk ci élection bi boycott la te. Euh, est-ce que euh, décision bi yow ànd nga ci. bon euh, xam nga dañu nekk ci organisation nous sommes tenus de respecter les décisions yi nga xam ne si moom la organisation bi jël. muy suñu leader. benn fait mooy am parce que boo rappelé wu sànq ñu inondation dañoo rappelé lan moo indi ACT bi parce que dafa remplacer benn organe bi fi nekkoon muy Sénat nest pas. te. am président am na ko waraloon je pense que li ko waroon ba léegi mu ngi fi. benn wàll bi également bu ñu tegee au conseil dañ ko war a évaluer xam nga teg pour teg je pense que amul solo mais dañu war a xool ban jeexital la am est-ce que au conseil bi cinq ans yi jox ñoom li nga xaar si ñoom def nañu ko pour des institutions politiques pour caser un personnel politique man d'accord ma si. Mhm. au conseil mën na am njariñ su fekkente ni ñoom li ñuy xaar ñoom ñu koy accompagner la décentralisation accompagner les collectivités. Mhm. je pense que bu fekkee ñoom loolu ñu ngi koy def. yéen mooy seen interlocuteur direct ak yéen. non du mën sax mooy seen interlocuteur mais ñoom dañu war nekk force de proposition. Mhm. xool nu ñu améliorer la décentralisation problème yi ñu gis mën ko àggee ci kaw. je pense moo tax mais composition bi d'abord moo xaw a doy ah. parce que bu fekkente ni. plus de la moitié président moo leen di nommé. Mhm. tu vois ça pose problème. politique ñoom. xam na lu tax ñu leen di xaar wala ñi fal les conseils yi ñu jël pour ñu dem ci chambre boobu est-ce que ils sont assez outillés euh, pour ñu mën a comprendre les problématiques de la de les problèmes des collectivités des collectivités locales pour mën ci apporter ay solutions. Uh-huh. je pense que dañu war a xoolaat euh, laytaay bi lan moo waral lii. Uh-huh. d'abord bu nga xamee dinañ xam est-ce que institution bi mi ngi jouer rôle am. Uh-huh. d'abord da nga ko war a évaluer mais man je me fekkee problème bi taxul ñu ñu dissoudre Sénat. wax na ko sànq dix ans après. moo fi nekkaat. dara changé wul dara changé kon muy muy muy au conseil bi même CSE bi conseil économique social environnemental. ñoom ban ban njëriñ la am si askan bi. yow wax ma wala Sénégal lañu wax ban njëriñ la conseil économique am c'est une question qu'on se pose Sénégal nag ils sont libres de. d'arbitrer. ok euh, beneen bi ñu presque pàcc boobu la ñuy jeexalee ñu ngi dem dëgmal élection présidentielle atum 2024 sa candidat mooy sax Khalifa saala est-ce que tey euh, xeex la. d'abord pour ñu daal di koy réintégrer ngir mu mun a bokk ci élection yi beneen bi mooy euh, élection législative yi dafa mel ni taxaw Sénégal wala bu ma ko mënee duppee mouvement bi gën na ëpp dayoo yeneen parti politique yi loolu stratégie bi lan la. xalifa c'est une réalité politique président Khalifa Sall c'est une réalité politique mën naa ne opposition bi su amee dayoo bi mu am tey ginnaaw yàlla loxo mi ngi si giir parce que mooy initiateur. Yewwi Askan bi loolu bëgguñ ñu fàtte. Mhm. également il le président de la conférence de leaders de Yewwi Askan bi Sall c' est de dafa am une maturité politique c' est une waxam bëriwul waaye li muy jëf moo solo. dafa mel ni léegi assise bi dëgër na de. merci beaucoup député yeeg maire eh, rek xam nga lépp solo si politique du wax ju bëri mooy liggéey. nee naa la gis nga li am tey c' est inédit. bu nu demee ba ñu wax naan que majorité amul fenn ça veut dire que ne y a quelqu'un qui est derrière ak accompagne nag ak ak des leaders comme le président Ousmane Sonko et d'autres Khalifa Sall sera candidat et sera notre candidat en tout cas ñun bu ñu am en 2024 incha allah lu ñu liggéey mooy fal ko en 2024 incha allah. su ma ko mënee wax yéen a ko yéen ko deseel léegi. Euh, waaw ñoo ko deseel ak réew mi parce que moom yëngatoom yépp pour réew mi la toute sa vie réew mi la ko jox. depuis bu nekkee jeune ba léegi gis nga ni c'est donné pour la république. parce que nee na moom lépp lu muy def jeunes yi la koy dem avancé te daanaka ñi ci maire ñu bari ñuy ndaw euh, ci euh, proposé na leen te beaucoup sont devenus maire ak député tey te ay jeunes rek la. Euh, parce que dafa comprendre fi mu toll boo amee boo amee une société une société largement jeune mënoo def dara sans les jeunes ku comprendre quoi parce que mënoo def dara parce que comme ndaw ñuy ëpp da nga jël kër. kër gi bu dee fukki nit ñaari mag a fa nekk huit personnes ay jeunes lañu kon société boobu jeunes yi ñoo ko moom moom il est là pour nous accompagner il est là pour nous orienter il est là pour nous redresser ce pays n'est-ce pas ànd ko nag ay jeunes parce que jeunes yi euh, kenn mënu leen écarter ku bëgg dara si réew mi da ngay bàyyi xel ci nas bi <laughs> loolu moom c'est un fait qui est là kenn mënu si dara ndogalu suñu borom la parce que la société sénégalaise la société africaine est largement jeune et président la président Khalifa l'a compris te incha allah jeunesse boobu ñoo koy per ñoo koy porté à la magistrature suprême incha allah en 2024. Mansour Sour euh, émission bi jeex na ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci ni nga nangoo invitation bi. waaw jërëjëf euh, Mbemba ñu ngi lay jaajëfal bu baax di wax ni am na nañu mbégte mu yaatu. partagé waat ak yow plateau bi waxtaanee tolluwaay réew mi. mais également waxtaanee également li ñu dénk. muy muy la commune de Njaañ mais également suñu département nga xam ne si daf ñu soxal. ëllëgam euh, ëllëgu département bi ëllëgu région bi dafa soxla ak réew mi ndax ñun dañu gëm ni ñun sénégalais ñoo war a liggéey suñu réew mooy sama gëm-gëm te moo war a nekk gëm-gëmu sénégalais yëpp te gëm naa ne incha allah suñu góorgóorloo kenn ku ne li la war nga def ko ñu xam ne nous sommes dans une république une compétition est normale n'est-ce pas démocratie mooy loolu ku ne am nga droit far fa la neex waaye réew mi mooy lu ñu bokk te mu ñu ko séddoo n'est-ce pas euh, que ñu respecté ko respecté démocratie bi respecté également la volonté populaire ndax population bi ñooy tànn yàlla ñoo population bi ñoo jiital a ah ñoo jiital également ki jiite réew mi ñu xam ne 2024 euh, mooy terminusam euh, comme wax na ko bind na ko constitution wax na ko ñu ñaan ko rek 2024 mu mu abal ñu. joxe euh, waaw ñu fal ki ñu bëgg a fal mu ànd ak bëgg-bëggu ak coobare suñu borom ak bëgg-bëggu askan bi. kon ñu ngi lay sant bu baax a baax di remercier auditrices yeeg auditeurs yi di leen wax euh, une prochaine fois. kon mbokk yi jox leen dig daje beneen dimanche beneen invité fii ci rajo Rewmi FM.